Serigne Bara Ndiaye Sénégal set moom ngi lay nuyu di la dalal. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi lay fay di nuyu sa mbokki internet yépp ak euh, képp kuy topp émission yi ñu def fii rek ci Sénégal set di nuyu euh, mboolem Sénégal yëpp yu nekk ci réew mi ak bitim réew. alors ñu nar a faram-fàccee tuuti rek ci actualité bi nga xam ni moo xew ci réewum Sénégal ñu nar koo doore ak euh, tey ji arrêté bi nga xam ni ministre de l'intérieur daal di koy génnee. di xam ne rek ni daal dinañuy in eh, rejeté li nga xam ni moo di liste Yewwi Askan Wi daal di bàyyi ki nga xam ni moo di Benno Bokk Yaakaar mu jàll loolee ban jàngat nga ciy def. waaw lima ma ciy def rek mooy xàmmiwuma ko ak euh, théâtre wu théâtre yi ñuy def série de théâtre yi ñuy def ñoom ñoom ñoom tan bombe rek ñoom ñànku théâtre yi ñuy def xàmmiwuma loolu ak arrêté ministériel bii. Mm-hmm. maanaam théâtre pire la parce que Euh, yow journaliste hmm. jàpp naa ne ci wàllu droit am nga loo ci xam hmm. code électoral bi ban base la nit mën a sukkandiku ne liste bii maanaam suppléant yi mën naa baax euh, proportionnel bi baax euh, titulaire yi bon hmm. ñëwaat ci liste bee nag titulaire yi dañuy baax suppléant yi bon loolu amul benn baas bu ko nit mën a sukkandiku ci ci code électoral bii ñu ñu ñu ñu yor bi ci def mooy mu ngi mel na nga bëgg a ñëw fekk pour dix mille francs wala benn benn benn benn benn benn maanaam benn këyit këyit boo xam ne këyitu xaalis la mm-hmm. nga ne benn wet gi foo béyee la benn wet bi béyee normal la xam nga loolu mënul nekk mm-hmm. léegi ñoom nee nañ nee nañ Yewwi Askan Wi seen liste euh, proportionnel bi baaxul mm-hmm. suppléant yi moo baax kon léegi suppléant yi ñoom ñooy proportionnel léegi kon ana ah, léegi proportionnel yooyu am na seen suppléant léegi benn bokk yaakaar ñoom seen liste suppléant baaxul léegi proportionnel bi moo baax. Mhm. kon benn bokk yaakaar ñoom kon dafa bëgg a wax ne am nañ droit dem élection te duñu am ay suppléant loolu mënul nekk. Mhm. c'est impossible mënul nekk loolu dafa amul maanaam xam-xam nanguwu ko. xel nanguwu ko xalaat nanguwu ko jërul ngay sori ci droit jërul ngay sori ci ay loi mhm. amul ci historique gu Sénégal lu mel ni fu mu mës a amee amul fuñ ko porowaar ci code bi amul benn base buñ ko mën a delloo mhm. lenn kese la lañ ci jublu te réussir nañ ko total total total total mooy fay waxu bébé yi am ci waawoon da jàpp ni daal pour camoufler loolu étouffer arrêté dañ koo def uniquement pour fay wax ji nga xamante ne moom la sénégalais yi doon wax ci bébé yi deeti waa woon uniquement. mais nga jàpp la gën a xam ne. nga jàpp ni boo ma wax loolu ñu ngi coow. du jur coow parce que bu ñu demee conseil constitutionnel beneen jël maanaam xam na ne arrêté ministériel bi théâtre la. Mhm. dafay dafay woote ñu defar liste yi ku nekk dem ci élection yi loolu mooy mooy affaire mhm. loolu moom mi ko bind xam na ko. waa waa euh, direction générale des élections xam nañ ko képp kuy wax ci droit fii ci réew mii xam na ne benn député bu mën a falu benn liste bu mën a jàll te andi woo say proportionnel andi say suppléant amul loolu amul il faut da ngay am proportionnel am suppléant. Mm-hmm. kon kon kon jàpp liste liste proportionnel bu bonee liste liste suppléant bonaale na mi ngi mel ne nga naan nga naan nga naan équipe nationale Sénégal. Mm-hmm. dañ doon dem dañ doon dem football yi dañoo dañoo suspendre dañoo suspendre ramp yi onze de départ yi kenn kenn suspendre leen bu ñu suspendre équipe bi kay suspendre nañ leen kon ñoom tey li ñu waroon a wax mooy liste yi baaxut mu jeex wala liste yi baax na mais ñoom ñoo génnee loo xam ne seen xalaatu bopp lañ ko teg mooy jékki-jékki rek daan léegi su suppléants yi baax na waaye proportionnel yi baaxut loolu mënul nekk kon daal da jàpp ni ministre bi dafa indi confusion ci arrêté boobu mu publier fan yii fi wax ji duggoon dafa baaxul mooy onze bébé yi am tiwaawoon mhm. loolu moom moo amoon ñii dem ba mu yàgg experts yi tàmbali wax ne set bébé la. set bébé la. loolu politiciens yu nekk fii bëgguñu mu leer te boo ko xoolee rek ni ni ni moment bi ñu génnee ay dekk décret bi nii. ak lii ñu ci bind da xam ne amuñu ci deful ñu ko ci benn baasu xam-xam lu dul bon nañ leen delloowaat ci nañ leen delloowaat ci waxu. Euh, te boo xoolee man man ni may xoolee gis naa ay journal yu bari yu génn démb naan audition Adji saar ba ñetti kii yo setal nañ kii nangam nangam ñoom foofu rek lañ am buñ demee ba xamuñu lu ñuy wax dañuy génnee Adji Sarr mu sinap mm-hmm. wala ñu ñu ne ñu ñu ne bi woor kenn mu ko defee ñu delluwaat naan Adji Sarr Adji Sarr mm-hmm. boobu doxul mm-hmm. ñu daal na léegi arrêté kale nañ liste Ousmane Sonko su ko defee coow li ne kurru buñ demee conseil constitutionnel mu réglé ko affaire u bébéy tiwaawoon yooyu jeex kenn du ko waxati. Mhm. loolu rek lañ ci bëggoon te réussir nañ ko parce que depuis ce matin déggatoo ko wax tey ci onze bébé yooyu nga xam ne dañu faat audit bi waxatu ko dafa mel na sax maanaam loolu moom football nañ ko mu jàll. Mhm. loolu nag mooy problème mu Sénégal bu ci kanamee tuuti da ngay gis jëyee ju jëyee ju raw jooju daal di amati. d'accord alors jëyee ju raw jooju daal di amati. Mhm. su ko defee. Euh, dafay dafay kii dafay dafay dafay dafay nekk loo xam ne day répété wu toujours toujours di am di amaat. Mhm. li ñu li ñu li ñu war def mooy affaire politique yi ñuy wax amul solo liste bennoo liste bennoo bokk yaakaar ak liste yeewi xaw ma lu ñu leen mën a talee mais du décret bi arrêté bii ministre bi bind loolu ma mënut. alors yow askan wi daal dinañ réagir waaye ci ab communiqué di xam ne rek ni lii provocation la. waaw ndax jàpp na ni loolu la loolu yow askan Euh, man na jàpp naa ne xam nga comme dañuy politique moom. Mhm. ñoom bu ñu defee ay acte il faut ñoom tamit ñu def réponse politique. Mhm. mais gëwuma ne luy mujj fenn la li ma gëm mooy élection yi dina am. Mhm. Euh, te Benno Bokk Yaakaar dina ci bokk. Euh, Yewwi dina ci bokk. parce que ministre de l'intérieur amul doole ju mën a ju man a ju mën a ju mën a def ab arrêté. di fekk liste boo xamante ne baaxul nga baaxal ko wala nga fekk liste bu bon nga baaxal ko loolu décret ministériel mënu ko. waaw donc daal jàpp na ni conseil constitutionnel moom dina remettre les choses à l'ordre ah ay boroom lañ ay xam-xam lañ. Mhm. amuñu amuñu amuñu sañ-sañu def loo xamante ne nii maanaam euh, am amul amul base bu ñuy dellu di ko def nit mënul toog nag di àtte lu ko neex. Mhm. te lii lii lii am nii euh, lii am nii. maanaam amul amul delluwaay ci xam-xam amul delluwaay ci xam-xam parce que dañoo am code électoral bu leer nañ te kenn maa ngi lay ñaan nga ubbi code bi. Mhm. wala nga woo ab ab juriste nga laaj ko. Mhm. amul ku la mën a wax ne lii ministre bi wax fii la nekk ci code bi. Mhm. maanaam liste bi dañ koy xaaj mi ngi mel ne ma la jox la aw billet dix mille francs nga ne ma genn wet gi baax na waaye geneen wet gi baaxut loolu mënul nekk billet bi day baax wala mu bon. loolu mooy liste liste boo xamante ne. Euh, proportionnel yi ak supérieur yi ñoo ànd. d'accord suppléants yi mënuñoo dem bàyyi si proportionnel bi proportionnel bi mënuñoo dem bàyyi si suppléants yi Antoine nag loolu la bëgg a def loolu la bëgg a saxal moom te loolu mënul nekk. d'accord alors. Euh, voilà bi euh, du ma du ma la bàyyi te waxuñu. déclaration bi nga xam ni président Macky Sall daal dina koy def daal ni liggéeyam ci wàllum président bi euh, jeexawul ndax loolu wundul ni jàpp ni day préparer rek pour nekk candidat ci troisième mandat. waaw Macky Sall actuellement nii. mu mhm. ngi wëndeel di jéem a junj di jéem a wax mooy li ma waxoon rek. kilifa xam ne yow yaa yor armée yor bit sa réew mi yor décret yi yor yor yor gendarmerie yor lépp soo demee ba bëgg loo ñemewul a wax war ngaa xam ne la nga bëgg bëgg wut. Mhm. Macky Sall troisième mandat mooy traversé ci boppam. Mhm. waaye da ko ñemewul a tudd. léegi nag li muy xaar mooy législative yi jàll. su ci amee lu neex. day continé ne sénégalais yi ñu may bëgg ba tey su naqaree mu del gannaaw loolu nag sénégalais yëpp ñoo mën a jóg def ci seen taxawaay mooy ñu sanctionné Macky ci élection yi mu jëm ba nga xam ne bu ciy jëlee ay résultat dina xam ne lii moom mhm. kuñ ko teg ci réew doy yow loolu mooy dëgg te na ko senegale yëpp xamandoo taxaw ci euh, def ci liñ ci war a def mhm. parce que moom day day day day day natt boppam rek li muy li muy li muy wax noonu yépp rek maanaam benn benn bëgg-bëgg la am mooy su su nooyee rek ma dem su nooyee ma dem su dëgëree ma toog mais moom li mu mooy ak ak wàccam dafa leer mbooleem ñi ko wër leer na leen ne nguur gi jeex na kenn ku nekk yaa ngi rawale li nga a rawale ñi mën a ñi mën a ñi mën a ñi mën mën a mën a séddoo ñu ngi séddoo mhm. waaye nag malheureusement moom yëgagu ko moom yëgagul ne nguur gi jeex na moo ko mujjee yëg nag mais ñi ko wër ñëpp xam nañ ne nguur gi jeex na. d'accord di leen wax joo xam ne tamit indi na polémique mu di déclaration Serigne Mbacké Faye ci ngan gi nga xam ni Serigne Mountakha Bassirou doon na ko amal fii ci euh, Ndakaaru euh, mu doon gërëm président de la république ba ñenn ci askan wi di ko ŋàññ yow ban jàngal nga ciy def. Hmm. waa xam nga foofu dafay nekk loo xam ne dafay xaw a gudd. Hmm. ci man ba pare nekk lu xaw loo xam ne day laaj ay teqantal. Hmm. waaye li am solo rek te am solo mooy <coughs> euh, Mbacke man man du ma wax ci li li El Hadj Mbacke yu fay wax. Mm-hmm. du ma wax ci liñ fa wax lépp damay wax ci ndaje ba ci jëmmi boppam. Mm-hmm. maanaam jëmmi ndaje moomu ci boppam moo wërta woon a am. ah lu tax. waaw parce que Macky Sall wutul dara Masaalikul Jinaan ñëwul deful pause première pierre ñëwu fa pour julli ñëwu fa pour gis sañ mu Mountakha sëñ Muntaxa mi ko yëkkati woon mu koy mu ne woon da koy siyaare si sëñ Muntaxa ma nga woon Kolobaan uh-huh. donc moom bu fekkoonte ne dafay dem siyaare ji sëñ Muntaxa kon dafa waroon dem Kolobaan ca sëñ ba uh-huh. amul benn raison bu la mën a wax ne moo tax Macky Sall ñëw Masaalikul Jinaan lu dul ñëw fa pour def discours politique d'accord voilà loolu nag Masaalikul Jinaan nag jàpp naa ne fépp fépp la war a politique ba mu des Masaalikul Jinaan gis naa ko Touba ba muy def ba muy def kii mu ne woon Touba duma fi politique waaye nag Euh, sama gars yi ma yëngal may ma ma def tuuti discours politique waaye daal bu ma sañoon moom na xàmmee bërëbu diine yi nga xam ne dañ fay def siyaar suñu pas-pas nekk fa suñ ñëwee liñ fekk muy diine ak pas-pas ñu waxandoo ko defandoo ko <laughs> waaye su fekkente ne ñëw fa pour jàllale ay message politique loolu moom def koy yàqal mais amul lu mu koy jëriñ voilà jërëjëf sëriñ bi ñoo ngi lay jaajëfal baax na jërëjëf maa ngi leen di sant bu baax